Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 26 août 2024 suñu fa jege dañuy seeti patron Africa Jom Center di Alioune Tine ginnaaw sorti bu mu def moom daal wax na ay dëggam yu leer nañ jëmale ko daal ci xamale ni que ginnaaw sénégalais bi ñu falee kii nga xamante ni Bassirou Diomaye Faye foofa ca palais bi nañuy jàpp ni daal di président de la République dañ ko confiné ca palais bi kenn gouverné wul Sénégal ku dul kii nga xamante ni premier ministre muy ay kàddu yoo xamante ni kii di Alioune Tine moom ko daal di xamle ginnaaw bi nga xamante ni mi en tant que président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye di président de la République du Sénégal mom le denk li di palais bi mais ki di premier ministre moy gouverneur ginnaw bu mu donné xalaat bi nga xamante Alintine Alioune indi na ko daal di koy relever ci ay insatisfaction yo xamanteni tay meun nañu jàpp ne daal lépp luñ ci meuna a du dara lu ki di premier ministre bi nga xamanteni moy gouverner don na ben avis bo xamanteni ne moko xamle ko invité ci émission boobu di grand jury fo ci RFM moom di président Africa Jom Center dafa tenir dal dal di conseil ki di actuel premier ministre mu jëmele ko dal ci ay question yo xamanteni tay pour ki nga xamanteni moy chef du gouvernement dafa am intérêt que dal di gouverner li nga xamanteni moy contexte pacifié jëmele ko ci ben débat bo xamanteni ni dafa xoot ginnaw bi nga xamanteni tay amul ben yoon bo xamanteni ben débat bu vorne lépp lu ñu mën a encouragé mooy premier ministre bi jamono ji dafa pare pour débattre jëmale ko daal ci ak li nga xamante ne mooy opposition bi ginnaaw bi nga xamante ne dafa posé benn problème jëmale ko daal ci inaccessibilité kii nga xamante ne mooy chef du gouvernement ginnaaw bi nga xamante ne moom ci boppam mooy gouverneur lii di Sénégal en même temps que li nga xamante ne mooy chef de parti mu doon ay questions yoo xamante ne ñu ngi koy demandé jëmale ko daal ci kii di premier ministre ci li nga xamante ne daal ay contradiction la daan na daal loo xamante ne lu am importance la jëmale ko daal ci conseil yi nga xamante ne Alioune jox na ko pour moom alintine Tine kii di premier ministre bi dafa dafa waroon mieux nekk ci benn poste boo xamante ni si la ko gën a gis que lii nga xamante ni tey mooy présidence ginnaaw bi nga xamante ni moom ci boppam lépp loo xamante ni tey leer na ci kanamam du dara lu directeur de cabinet du président de la république ginnaaw bu nga xamante ni moom moo ko géré lépp loo xamante ni tey benn espèce bu confusion la jëmale ko ci ay rôle yoo xamante ni. meilleure place qui est di premier ministre de dara ludul fofu ci présidence muy Alioune lo loo xam ne xamle na jamono ji ñu tollu nañ jàpp dal premier ministre bi gouverneur Sénégal président bi dañ ko dal di confiner fofu ci palais en tout cas lepp lo xamante décision le premier ministre bi moo jël.